abonné leen ci seen chaîne YouTube Leral Plus TV. ayibal akbar muy bésu tabaski bi mu màgg bi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci suñu yonente alayhi salaatu wasalaam royloo ko ci yonente suñu yonente maam Ibrahima alayhi salaam ci li ñu war a déggee foofu nag mooy dégg ndigal ak topp suñu borom tabaraka wa taala moo ko mën a jëriñ ëllëg ndax ci déggalu suñu maam Ibrahima alayhi salaam. ci la ko yàlla mayee li ko may tey ba mu agsi ci ñun ñii def waaye yëngu ci moom déggalam donc waaye xool bu daf ci boole doomu dégg ndigal bu ko déggal ak soxna si mu nekkandoo la loolu nag ñun liñ ci war a jàngee tey mooy topp suñu borom tabaraka wa taala ci bi ñu xéwalee ñu nekk ay nit ñoo ay ay jullit dañ nekk ci islam topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci suñu jamono maam Ibrahima la ñu royal yi nga xam ne lu ko suñu borom tabaraka wa taala digalee ne ko na ren ñu doomam كان جنابي موي إسماعيل ولا إسحاق كان رجل ياتي بلسيو من كل سجد إني على كل منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى من كل مسلم من رأي واحد دوم نقصد برم تبارك وتعالى وما جلدنا على رأيه منك يفعل ما تؤمر ستجدون إن شاء الله من الصادرين منك تقل لغم من رسول برم تبارك وتعالى جلد لما فك مبوك خير لن يمد بمكو

damay am yërmande ci bët yi daje nga di ma xool moo tax ma am yërmande pour bañ a rey bi mu ko tekkee ba pare bu mu tegee tànk bi dawal rek nga dagg mu xool gis am xar bu mu rey nee nañ ci xar yi nga xamante ni bii yonent aljanna la ko jëlee indi ko ci aabi ak aabi seen baat boobu nga def mu am nga defal ko ci test ci juróom xar bi waatee ko moom la suñu borom yóbbu woon aljanna moom la ko wàcceel foofu nee na bi mu rendee mu taxaw naa ne alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu defee li ko suñu borom digal xool gis xar mi dee xar mi ne alhamdulilah rabbil alamin fi mu jógee ba bakkan yonent alayhi salaatu wa salaam Ismaïl tamit taxaw ci gannaaw ne alhamdulilah rabbil alamin du ko suñu borom mayee xolam mun ko li li ko suñu borom digal jaarale ko ci waajuram mun ko. kon ci ndigal loolu lañ war a tënk boo xam ne xar moomu waxee moom la ñu jënd tey war ko def jot jotee ko suñu maam ah Ismaïl wala Ishaq dinañ def xar bi def mu ne dangay jënd xar rek ren bi am tabaski waaye dafa am sàpp yoo xam ne dañ la ko tegal ne la nii la xar bi war a mel nii la ko war a defee waxtu wi nga ko war a rendi lan la xar bi war a mel xar bu warul pat warul lajj warul làkk xar bu mat la war a doon war naa mat at mu sëkk ba dugg ci atam ñaareel bi xar nag bu ñu waxee xar kuy bu moo gën ta tappaake bi topp ci xar bu jigéen bi topp ci kon ci loolu ngay jaar doo di am yore tabaski commencé ci charte bi mu ne lépp na xam donc tamit dañ mën a tabaskee mën nañ tabaskee bay boo amul xar bay bi tamit li ñu la wax ci xar dañ la wax ci moom bu mu bàq bu mu làkk mu ràññ te da nekk tàppaale euh, bi na am at bu ma sëkk ak weer ba dugg ci atam ñaareel ba mat weer mooy tabaski nag mën nañ koo tabaskee waaye nag moom it li ñu la digal ci xar lañ la digal ci moom ak bay bu mu pàcc bu mu làkk te bu mu ràkk tamit moom na am ñeenti at yu mat ñeent na dugg ci atam ñeenteel nag moom it kuy bi moo gën ñu tegal ba teg ñu jënd xar wala ñu jënd nag wala ñu jënd béy wala koñ bi teg jënd nag déedéet du mat tabaski tabaski kenn ko bokkante xanaa mën nañ la yéene ci yoon bi ay dëkkandoom wala ay doomam wala ay xaritam yi nga xam ne amuñu xar mën na leen ci yéene waaye kenn ko bokkante ci njëkk ak ci melokaan bon waxtu lañ ko war a rendi dañ ko war a rendi bu imaam jullee ba pare ba ba ba pare ba leen di xaram ci lañ war a ren loolu ci sart yooyu ngeen doon di am tabaski boo xamante ni bii ren di dem njëkk imaam nag na jàpp ne amul tabaski la yàpp rek la am dégg ndigal loolu nag nañ ci war a déggee ndigal royee ko ci suñu yonente alayhi salaatu wasalaam mu ñëw ñu bañ àgg ci maam Ibrahima alayhi salaam ci doomam jooju def naa dañ ko sant moo gën a métti ñëw xaar imam jiite ba pare xutba rendi xaram moo gën a yomb nga jël sa doom di ko rendi wala yow doom ji wajur bi di la rendi xaar loolu moo gën a yomb nee na tamit tabaski kenn du ci jaay dara amul dara lu la jaay kenn du ci euh, remplacer dara weccoo kenn du ko def euh, koo xamante ne bii weccoo na ci wala mu jaay ci jénga ne def na loo xamante ni yoon sant ko ko ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam boo amul yooyu yëpp nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam tabaski la la ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam tabaski woon na ñaari xar yu mag yoo xamante ne bi yu ñuul la ñu am ay bëjjën mu tabaskee ko bi muy bi koy leen ci loxo ci tedd yi dafa waxoon ne bismillahi allahu akbar allahuma hada anni wa amman lam yudax min ummati maa ngi tabaski waale mboolem sama xel yi ko xam ne amul ci tabaski kon jërul leb soo fekkee doo xam loo ko fayee daf lay wàcc te amul yi ñu la wax benn test test bu métti ji ci yonent ba alayhi salaatu wasalaam mu ne amul benn jaam boo xamante ne bii jël na xaram jubale na xibla ren ni ko lu dul ne geret yi ak service ak karaw gi ak yàq yëpp dañ ko jël ëllëg yow la xiyam teg ko ci balaasu yiwén peesal ko mu bokk ci ay yoon ragal yàlla bi nga koy ragal di ko def sant la ko def ko moom la lay jëriñ loolu mooy nekk njëriñ ci yow ëllëg la wala daa mën a dana diisal sa bés yiw muy bés ba ay jifaat ya kenn ku nekk da nga rëcc li ma dem def ci lu baax lu tax dolli ma ko li ma defoon ci lu bon lu tax def ma ko ñaari nañ ci rek moo fa nekk yonent bi ale jël nañ tamit nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dañu wut tabaski yu mag buñ ko mënee am ndax ëllëg yow ma xiyaam dana nekk suñu war a waay ci bu ñu jéggi siraat ndax siraat benn boora bu nekk ci diggante safara ak aljanna boo ko jéggee rek dugg aljanna moo tax nee na mun tabaski man ndax ëllëg daa nekk suñu waraay ci bu ñu jéggi siraat lii nag sunna la boo xamante ni bii tabaski ñu ko waxee yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci la jaaral ak ay saxaabaam ak salafu saalix yi muy nit ñu baax ñëpp kon xam ne ñoo fi nañ ci jéem a sopp na nag ci bés bi bu ñu jullee tisbaar tey ñetti kàmbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar bu jullee tisbaar tàmsaan julli bu ñu julli ñu wax ko ba besam ñeenteel ba ñu jullee suba foofu la yem soo paree tamit ñu eh, woor ci bés bi ba ñu rendi xar yi dox ci doonte amoo xar ba dagee saxar loolu sopp nañ ko dana tamit jéggalante ci bés bi baalante xaq doonte dangaa defal say tooñaange yëpp baalu ko xaq sa morom bu baal ko ba gënañ ko ci bés bi ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku jéggale ñu jéggal la te képp koo xam ne tamit ne war nga ne sopp nañu yoon bi nga jaar nga jaar beneen yoon doonte dana jafe ci jamono toll yi ndax digle la boo xamante ni mu jógee ci suñu yonent alayhi salaatu wasalaam ñu bàyyi wax xel tamit suñu bopp ci wàllu njëriñ yore njaboot gi ñu koy fàttalante ci li ñu war a ji ndax jamono bi fii fëkkee bëri na ci loo xamante bi noonu lislaam yi ñooy ko defal indil ñu ko ay jumtukaay yoo xamante bi boo duggee ci kër yi fekk ko fa boo duggee ci jàkk yi fekk ko fa boo duggee ci kër yi jaamu yàlla muy loo ne écran la ba pare mën a war a àddina bi fi nga toog ci lañ ñuy xeexee nekk nii muy lu xaay tuuti tuuti mën nga ko manipuler léegi muy téléphone wala tablette wala télé bokk na ci li nga xam ne mooy yàq suñu jikko yi tàqale mbokk gi yàq suñu culture yi ñu defoon na am yëpp daanaka ndax boo duggee ci réseaux sociaux yi fi nekk loo ko fekk loo xamante ni bi luy defar lu ci ëpp luy yàq rek dañuy waxante ci suñu biir te pourtant dañ ñi nga xam ñoo ko dugal lu baax duñ mën a wax fees na dell ci biir réew lu rafet bi mën a génne fees na dell ci biir réew mi waaye ña ko fay dugal ñu ngi bokk ñi nga xeex ñi nga xeex kon képp koo xam yaa ngi jël lu ñaaw di ko teg sa dër morom jàppale yaa ngi def loolu ay yonente bi suñu borom tabaraka wa taala tere na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam tere na ko te ëllëg da nga daje buur bi nga xamante bi mooy rek lépp loo xam ne defal ko ci kaw ci àddina ndax nee na lépp loo xam ne alal ju lew nekk ci àddina حساب لا يجرى لهم يوم القيامة لهم نادي كوي نقلا لب لا قام النبي تمين لا حرام لا مقبل لا يجرى لهم يوم القيامة كل ما في جاهم يوم لب لا كوي نقلا لهم يوم القيامة لا كان كل من من عند كرام من جات بيه لب لا في عالم من ما تفعلون لب لا في سوى ما تجت كلهم الله جه تير بس يبغى تبارك وتعالى دفنا يوم ما نسافر نكني نبنتوا نعم، في بفهم تاني ku ca bëggoon a enregistré dañuy wax yàlla ak enregistré kon suñu borom tabaaraka wa taala carte mémoire bu mu yore wala li mu yor ci ay séquence mu gën a fay mu gën a ëpp yi nga xam moom dañu am fii ci kaw suuf kon war nañ bàyyi xel bu baax suñu bopp te suñu bopp yi suñu bët yi suñu nopp yi lépp luñ jox dañ ko enregistré te ëllëg yomal taam li ñu tegal la téere bu ñu la jox la ne la iqra kitaabaka kafaa bi nafsika al-yawma alayka hasiiba jàngal sa téere bi nga xam ne moom ko doon def ci àddina liñ la rek la moo ci nekk li nga def rek moom lañ ci bindal te day taseet foofu buur boo xam ne buur bu maandu la li nga jëwoon sa morom wala li nga tegoon sa deru morom wala li mu xasoon wala nga jàkkaar ko mu tooñ ko mu yëpp ko ak ñàkk koo yëpp lépp bu ëllëg yow ma xam dañ ko def ci téere boobu nga jot ci kon rafetal jot na nañ rafetal te dellu ci suñu borom tabaraka wa taala te loolu dara mu jiwee jiituwu ci lu dul yar njaboot gi ñu xam fan lañ war a teg seen tànk ndax bu ñu gisee coow lu bëri li fi xew fan yi ñu koy wax borom ñaari tur yi li ñu ci mën a musal mooy njaboot gi xamal leen lan la bàkkaar boobu ban bàkkaar la la mën a jural ëllëg yawmal qiyaam jàngal leen alquran jàngal leen hadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg leen ci siraatal mustaqim loolu rek war na mën a muccal ëllëg ba nga xëy ndaw yi buñ fi jógee buñ ko gisee xam ne lii du lu jaar man koo xeex ndax noonu lislaam yi dañu xeex xeex bu gaaw la ñu xeex ndax xoolee xoolee ci benn bés ci benn waxtu ñu fexe ba loolu ñu tuddee seen drapeau bi ñun Sénégal kenn xam ko ci woon ñu fexe ba ñun ñëpp kon loolu nañ ci bàyyi xel niñ koy xeexee ñun suñu bopp nag dañ fexe ba xamal xale yi ñu moytandiku di seetaan loolu ndax buñ ko waxee ku ñàkk bañ bu ko dana dem jéem a dem seeti ko leen ci musal nag mooy xiirtal leen ci alquran ñu jàng seen alquran di julli ci ca jàkka ja su fekkee waxtu yëpp yaa ngi koy julli ci jàkka ja rek amaan na yàlla musal na ci yu bon bon yooyu nga mën ko bañ a dégg ba di ko seetaan yi ndax inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar su fekkee yaa ngi julli julli dana dox sa diggante ñaaw ñaaw yi ndax doo ko tal diggante bi ngay jàppee julli ji jàng sa waxtu Alxuraan def say lawraat dem sa liggéeyu kaaba doo tala dugg ci internet bi ba fay seet loo xam ne loo xaraam la ba sa bët ci tege kon loolu la ci mën a musal. alhamdulilah rabbil alamin. mot mot mot motul na waaye xanaa ci mbaax rek la. yonent Yàlla Ibrahima alayhi salaam moom ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom. moo ëpp maqaama ci yeneen yonent yi des su borom def ko wax ne na Ibrahima kaana ummatan qaanitan diggantam ak yàlla dara doxu fa yàlla dogal nag moo toog ba mag amul doom yàlla war si ko doom mu ragal ne nag doom ni mu neexee ak ni mu toogee lu yàgg jotu ko ndax doom bi du wàññi dara ci li nga xamante ni moom la nekkoon ak boromam. loolu moo indi nattu bi ñu ko te mu leen di doon ndax dara dara dara bu ñu bañ a dox diggantam ak yàlla nga toog ba mag am doom ñu ne la rendi ko bon soo nangee loolu yow yàlla def laa gënal lépp waaye bi ko yàlla gënalee gis na li ko yàlla fay kon jullit yàlla moo war a gënal léppam su boobaa nag yàlla dina ko wuutu ci lépp li mu doon bëgg yàlla indi ko kon nañ jiital yàlla ñu jiitale ko nag ci topp ko yonent yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu ni mu ko ni mu ko jàngalee suñ ko defee rek yàlla dimbali ñu ci def yàlla nañ yàlla may ci topp yàlla na ñu wér yàlla bàyyi ñu fii suñu sëriñ bi yàlla yàggal ko fii doom yi ak ñun ñëpp yàlla teg ñu ci ci ci sharia def ñu ñuy julli dëgg dëgg dëgg yàlla bàyyi ñu fii fajal ñu soxla yi biir ak biti yàlla may ñu wér may ñaboot yi wér comme ni ko <coughs> Seydina Umar waxee rek <coughs> soo buggee soo buggee jub nga jubale jiitalal sa kër rek sa doom yi di jiitu ci njub mooy jàng ku xamul mënul jub soo leen xamalee ba pare yow ñu gis la nga tegu ci yoon dina yomb ñoom ñu topp waaye nag soo leen bëggalee jiite ñu jub te jànguñu dina jafe ku xamul du mën a jub soo leen jàngalee ba pare tam ñu gis na ci leneen yow li nga leen di wax gisuñ gisuñ la ci du du yomb bon suñu jàngee ñu jàngal jaboot gi ñu jiitu leen gis nañu sëriñ bi ni muy doxee nii alhamdulilahi rabbil alamin lépp lu muy wax jaboot gi rek moom moo ci jiitu kon yal nañ ko yàlla bàyyi na fi yàlla may ñu wér may ñu topp yàlla <coughs> wasatal ñu ñun ñëpp ñu nekk julli dëgg yàlla yaatal wërsëg yi yar njaboot gi yàlla defar lépp ci zaahir ak baatin jaahi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى دليل مستقيم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم كل عام وانتم بخير سبحان ربك رب العزه والسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.